L'eau multimédia moo leen di may émission assalafou ma al Qur'an nous sommes l'eau multimédia l'eau multimédia 27 avenue Émile Badiane angle Paul Hall Dakar L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoires ci ay njëkk yu xarañ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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. mbokk ñu dellu si ci sunu jotaay asalafu ma alquran nu koy amee fii ci la maison du Coran au Sénégal nga xam lépp waaye ak xam-xam xam-xam yëpp di dellu ci alquran ndax wa nazalna alayka alkitaba tibyanan li kulli shay lépp loo bëgg a rek mu leer dellul ci li nga xamante ne mooy alquranul karim téere yàlla buur bi subhanahu wa taala euh, fan yii nag ñu nekkoon di waxtaane ki nga ne mooy Uwaysun al Qarani tey a Euh, toxu dem ci beneen tomb waaye balaa booba pour gën a xamle rek xam ne ne waliyu yàlla buur bi subhanahu wa taala yi yàgg nañ ci li nga xamante ne moom moo di jamono tey dañuy nettali benn jotaay boo xamante ne benn jëmm joo xamante ne ki nga xamante ne mooy Maalik ibnu Dinaar moom moo nu koy nettali Maalik ibnu Dinaar nekkoon boroom xam-xam bu mag nekkoon waliyu yàlla nekkoon jàngalekat bu mag moom moo ñuy nettali mën nañu fële ca Basra dafa may ay at yoo xamante ne dañoo toog asamaan si tawul tawul tawul tawul ba ñu war a def li nga xamante ne mooy salatul istisqa mooy julli baaw naan ñu daal di dajale borom xam-xam yu mag ya nga xamante ne ñoom ñoo fa nekkoon ñu daal di génn ca penc ma daal di woo donga yi ci daara yi daal di woo nit ñi ñëpp génn ñu ne nañ def salatul istisqa muy julli baaw naan ñaan yàlla buur bi subhanahu wa taala asamaan mën a taw leen ñu daal di fay daje daal di julli ñaan ñaan ñaan waaye gisuñu lenn luy niru atharal ijaba waaye gisuñu lenn luy wane ne yàlla nangul nañu ba ñëpp ñibbee ñu daal di fay toog man ak lenn ci boroom xam-xam bañ fa toogee ba guddi gi daal di dugg si bi gi dugg see nee ñu daal di gis benn jaam jaam goo xam ne nit gu ñuul la maanaam ñu daal di gis benn jëmm mu nekk jëmm joo xamante ne jëmm ju tuuti daal maanaam nit ku tuuti mu nekk nit ku ñuul waaye Abdullah ki nga xam ne mooy Maalik ibnu Dinaar nee na li mu sol yëpp ci kaw ba ci suuf bi ma ko xaymaa mu ngi tolloog dirhamayn maanaam ñaari dërëm dix francs waaw li mu sol ci kaw ba ci suuf bi ma ko xaymaa dara seeru ca moom mu daal di ñëw ba ci julleekaay bi mu daal di génne li nga xamante ne moom mooy eh, eh, eh, jàppukaayam ah, mu daal di génne mu daal di jàpp bi mu jàppee ba pare mu daal di julli ñaari rakaa mu talli mu daal di tàllal yàlla buur bi mu ne ko sayyidi wa mawlaaya ya rab yow yàlla mi nga xam ne yow yaay sama sang yow mi nga xam ne yaay suma kilifa yow mi nga xamante ne yaay suma borom ila kam taruddu ibaduk ila kam taruddu ibadak ba kañ ngay wañ ngay ñàkk nangul say jaam yow yàlla anafida ma indak ndax li nga amoon dafa jeex la ilaha illallah wàllu yàlla rek ko sañ anafida ma indak ndax yàlla li nga am dafa jeex am naqusa maa fi xazainik wala yow yàlla say compte dafa wàññeeku dafa wàññeeku da ngay gis léeg-léeg borom xaalis yi waaw léeg-léeg ñu commencé mën nañ commencé maye waaye duñ ko àggali parce que seen doole àggu fa koo fi gis mu commencé maye ay million da koy def benn fan ñaari fan nga gis nag ah wala léeg nga seeti ko tey mu làmb poos nga seeti ko suba mu làmb poos gannaaw suba soo demee mu ne la xaaraankat bi waaw jaamu yàlla bi ne yàlla wala yow sa kont lafa nekk dafa wàññeeku compte bi dafa woyof xanaa yàlla maa ngi lay ñaan ci cofeel gi nga am ci man illa asqaytana gaytak maa ngi lay ñaan yow nga daal di ñuy daal di ñuy wàcceel sa taw bi yow yàlla buur bi subhanahu wa taala bi loolu amee Maalik ibnu Dinaar nee ne balaa waa ji di noppi rek asamaan si daal di xiin ci saa si rek nee ne taw bi mel ni ay siwo ndox nga daal di kole di ko dot ngir taw bu bari Maalik ibnu Dinaar daal di yéemu lool bi amee waa ji yëkkatiwaat jàpp waayam sol dàll yi doxaat ci guddi gi laa ilaha illa allah nee ne bi loolu amee Maalik ibnu Dinaar nee ne ñu daal di koy topp faqtafaynaa athara ñu daal di koy topp ba ñu ko toppee nag lañu ci jaaxal moom mu ngi dugg kër benn jaa maanaam kër ga ñuy jaayee jaam yi ci bayti naxaas mu dugg ci kër ga nga xam ne fa la ñuy jaayee jaam yi laa ilaha illa allah Maalik ibnu Dinaar nee ne ñu daal di ñibbiwaat ci lëndëm gi ñu bàyyi ba ca suba sa daal di dem ca kër googu nekk nga xam ne mooy naxaas bi ka fay jaay jaam tey jaay esclave yi ñu ne ko ndax ñaata jaam nga fi am mu ne leen am naa lu tolloog téeméeri jaam xam que xamuñu turu kañu gisoon waaye xàmmee nañu xàmmee nu jëmm ji mu ne ko génneel di ñu wan ñoom ñu waa ji di génne di leen wan kum leen wan rek ña fa doole waaw kum leen wan rek ñu ne ko du kii kum leen wan ñu ne ko du kii ba mu génneeg lu tolloog ña juróom-ñaar fukk muy soixante-dix ñoom nag ba ñu xawee jaaxle ñu ne xaar ñu ñibbi ba suba bi ñuy tourné rek ci benn tabax ci biir kër gi ñu dégg fa ab benn jooy bi ñu yërndoo ñu gis waaja sujjóot di jooy a bi loolu amee Maalik ibnu Dinaar ne giñ naa ci yàlla rek ka ñu gisoon démb moo nekk nii ñu daal di dem woo patron ba mun ñu ne leen kii la ñu bëgg nga jaay ñu ko waa ji ne leen kii de amu fi njariñ bëccëg bi yëpp da koy jooy ak guddi gi amul benn njariñ day toog rek di jooy waaw ne ko loolu lañ bëgg moom bii lañ bëgg laa wax waaw ñu ne waa ji ñaata nga koy jaaye waa ji ne leen lu ngeen joxe baax na lu ngeen joxe baax na te xamul ne wallahi wali yu yàlla lay lay jaay lu ngeen joxe baax na Maalik ibnu Dinaar nee ñu daal di koy jëndeel ci ashrina dirham te jamono jooje ndax seer na lool waaw xaalis gu bari la waaw waa ashrina dinaar ci ashrina dinaar ñu daal ko koy jëndee waaw nee ban ko jëndee ci jamono jooja ñu jëndee ko ci xaalis bu bari ci jamono jooja waa ji ne leen xanaa déggoo leen li ki patron bi wax ne leen man amaluma leen njariñ waaw jooy rek laa fi nekkee aw ma benn njariñ laa astatiu an axdima li maxluuq mënumaa liggéeyal ku yàlla bind mën naa liggéeyal yàlla waaye yéen mënulu ma leen liggéeyal waaw bi loolu amee ñoom nag ñu ne ko mastaray naaka li nax bi li nax dimak mastaray naaka li tax dimanaa bal istaray naaka li tax li nax dimak waaw jënduñu la pour nga liggéeyal ñu ñun dañ laa jënd pour ñun ñu liggéeyal la laa ilaha illa borom xam-xam yu mag yooyu ñoom ñoo koy wax loolu bi amee waa ji leen lu xew ñu daal di nettali waa ji la nga xam ne moom moo woon démb la ñu gisoon yëpp ak na mu doxaleeg yàlla waaw kon nit dafay toll ci yàlla martaba boo xam ne lu mu ñaan yàlla yàlla def ko ci saasi te teewul xool ko ab jaam la waaw waaw bi amee waa ji ne leen comme que noonu la demee dangeen may may ma dugg ci jàkk jële julli ñaari raka ñu ànd daal di continuer dem waa ji ñu daal di koy may mu jàpp dugg ci biir jàkk ji bi mu duggee ci jàpp jàkk ji julli ñaari raka fa salla rakatayn daxala al masjid fa salla rakatayn mu daal di julli ñaari raka waaye ci mujjug sujjoot ga bam ca pare mu daal di tàllal ay loxom mu daal di xool asamaan mu ne allahumma laqad kaana sirran bayni wa baynak yàlla am na sekkere goo xam ne moo doxoon sama diggante ak yow waaye yow yàlla buur bi subhaanahu wa taala comme que xamal nga ko jaam yi xamal nga ko doomu aadama yi nan lay dundaatee ci kaw suuf te tey ji su nekkoon ñi tey ñu wute ko bës nan lay dundaatee ci kaw suuf fa kayfa aishu min baadi al nan lay dundaate ci kaw suuf faqbidni ilayk yow yàlla kon damaa bëgg nga jël sama ruuxu ma dem ci yow nee bi muy wàccee loxo yi rek mu daal di Maalik ibnu Dinaar ma nee ne ma xaar ko lu yàgg siggiwul bi ma ñëwee laa ko fekk ndekete mu génne àdduna mbokk yi li tax ñun ñuy nettali jotaay yu mel nii li tax ñuy nettali ay wàllu yàlla yu mel nii pour ñu mën a sauver doomu aadama yi tey pour ñu mën a sauver ndaw yi tey pour ñu mën a sauver jigéen ñi parce que tey jii xamatuñu gàttu xam-xam tax na xàmmeetunu mag joxatunu mag cër xàmmeetunu nitu yàlla waaw xàmmeetu nitu yàlla te am na nitu yàlla yoo xamante ne soo tegee ci seen nder lu ñaaw rek nga yàqule aduna ak alaxira parce que luxumul ulamai masmuma nitu yàlla ah man aadaahu ah képp ku ko noonoo rek yàlla ne qad aadantuhu bil harb man yàlla man maa lay tëkku kon yii su amee ñu leen koy nettali dafay tax ngeen xam lu bari soo xamee lu bari dafay tax nga xam nan ngay moytoo dafay tax nga xam nan ngay doxale dafay tax koo gis rek nga mën koo jox cër waaw dafay tax koo gis nga mën koo jox cër kon loolu moom moo nekkoon suñu jotaayu asalafu ma al quran tey jii ma kaana min sawabin fa min arrahmani wa ma kaana min xatain fa min nuqsaan صلى الإله على النبي وآله Nous sommes l'eau multimédia. L'eau multimédia. 27 avenue Émile Badiane, Angle Paul Hall Dakar. L'eau multimédia spécialiste la ci informatique bureautique divers matériel réseau ak yeneen i accessoires ci ay njëkk yo xarañ.